delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Léopold Mendy mbokk yi ñu bokk sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa buur bu ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm yal ñu yàlla may jàmm ci suñu réew yàlla ñu yàlla may jàmm ci suñu dund wi waaye yal nañu yàlla wërsëgal keroog ba ñuy dajeek moom mu may ñu mu nekk ci jàmm waaye keroog bés pénc ñu di ko ñaan yal nañu yàlla atti ci yërmandeem dugal ñu këru xéwal ba nekk fa moom di këru jàmm ji di aljanna amin yaa rabbal alamin ndax moo ñu ne uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma leen sàkku leen ci man la ngeen tële lu leen kenn mënalul man mi ko man te mu nekk ci sama moomeel na ngeen ko sàkku fa man ma defal leen ko ba tax na ñu ngi ko naan allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayyina bisalaam wadxilna aljannata daaraka daarussalaam amin ya rabbal alamin yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ñu xéewalal xéewal bu toll ni xéewalu nelaw dañ leen bu dee dañ ko doon jaay amaana ñu mel ni man duñ ko mën a jënd ndax ne yàlla may alal ñooñu ñuy jënd la leen doy bu ñu ne sax bu dee manees nañ kaa wax ñoom dañuy jënd grossiste ñoom duñu jënd nelaw par détail waaye da xéewal xéwalu nga xamante ne ki am ki ñàkk ah ñëpp ci bokk yem yàlla muy xéwalal jaamam yi xéwalu nelaw ba nga xamante ne ñëpp a koy soxla te ñëpp a koy def subhaanahu wa mu doon xéwal wi nga xamante bur yàlla mu ñuy wax ci maana alquran wa new nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal nelaw ba ngeen di nelaw mu doon dallukaay wi nga xamante ne fenn amul amul fenn fu ngeen mën a amee dallukaay bu mel ni la ngeen di dalloo ci nelaw du ngeen ko amee ci feneen du ngeen ko amee ci leneen moo ne nit dina woomle dina am àddina li ci biiram moo ne nit a ngi nii am na lu dul xaaj am na lu dul jeex waaye bu tëddee du nelaw kooku mu doon fitna joo xamante ne yàlla da koy wone sa am-am bi ak sa man-man ba ma la baaxee nga nekkee ko yaa ngi nii tere naa la nelaw te mënoo koo am feneen munoo koo am ci leneen ñu ne kooku bu demee bay waaja nelaw xanaa seytu saytu wërgu yaramu doomu aadama ñoo koy tegtal ne lii boo ko naanee dinga nelaw lii boo ko meloo dinga nelaw waaye nelaw original bi nga xamante ne da toog am nelaw bu la gane si mu doon rakk nelaw di singim walla jayaxu ak nu mu neexee ak boo koy def boo ci tolloo di ko def noo koy santiri ak lu ci yëg ci xeetu neex-neex képp ku ko yàlla xañ xañ na lu neex amaana yow mi am àddina li ci biiram yaa ngi nii munoo jayaxu yaa ngi nii munoo singim yaa ngi nii munoo nelaw amaana ki nga xamante ne mu ngi sa wet amul dara day taaba taaba amul dara day góor-góorlu amaana bu añee du reer amaana bu ndekkee du añ amaana bu ndekkee sax du reer mu nekk ci xaala bu garib xaala bu doy waar woowu moo ne moom de yàlla mel na ko bu tëddee day nelaw bu tëddee day nelaw ba yandoor kooku yàlla wërsëgal ko xeetu bànneexu nelaw ak neex ba nekk ci nelaw yow mi yore li ne gàññ yàlla xañ la banneexu nelaw te munoo ko jënd munoo ko ame feneen kon mu doon xéewalu bi nga xamante ne bu ci yàlla yemale ki am ak ki ñàkk foofu dañ siy gis ne maandute yàlla la yàlla wone foofu subhaanahu wa taala waaye aka neexoon ñu xam xéewal woobu ci suñu jëmm yi ba tax na yonent bi nee na képp ku def nelaw woowu képp ku jëfandikoo nelaw woowu boo yeewoo loo war a wax mooy alhamdulillahi alladi ahyaana mboolem xeetu cant yu matale yi mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla ndax buur la mooy mooy buur bi nga xamante ne moom ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dellu bu ñu jeexalee dund bi kon mu doon xeetu format cant yàlla wi nga xamante ne yonent bi moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam kon dafa war ci jullit bi sa yu mu yeewoo ci nelaw mu ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawee ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw ci man gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu moom la ñu naan nelaw te tamit bu ma fi jógee ko wa ilayhi nushur ci moom buur yàlla lay dellu subhaanahu wa taala ba tax na mbokk yi réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar bi tey ñu andil leen melokaan jëmma yoo xamante ne ñu ngi fi ñuy dund ak ñoom mel ni aaya alquran ak xadis bañ leen waaj a dégtal ni jamonoy doxalunu lenn ci nit ñi lañ ñu bëgg a waxal ñu nit ñu bëgg leen kaa yeggee ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalanteeg ñun fii ci réew mi FM 97.5 ci waxtu wi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yal ñu yàlla jàppandalal ñu war ko war a mën a faram-fàcce comme na mu nekkee mbokk yi yal na yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot bu ñu demee xool ca suratul xaj ci aaya huit juróom-ñetteelu aaya bi. buur yàlla tabaraka wa taala mu ñuy wax ci suratul xaj baada audu billahi min alsheytaani arrajim wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bi gayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir mbokk yi melokaanu ay jëmm yaa ngi nii ñi nga xamante ne dañuy dàgg sante ci mbiru yàlla dañuy nekk di xuloo ak nit ñi ci mbiru yàlla waaye teguñu ko ci ñetti tex bi nga xamante ni moom la yàlla ne képp kuy dàgg sante na nga jël ñetti texte yam la wax nii na loolu nekk sa fondement waaye képp ku jël ñetti texte yi éliminer leen ngay dàgg sante nit ñi ci lu dul ñetti tex ya yàlla joxoñ ci aaya bi kon yow sa dàggisante boobu amul benn njëriñ waaye da nga nekk ku bari wax da nekk kuy wax di sànni ba tax na melokaanu gaa yaa ngi nii buur yàlla ne ñu mu ne yenentu bi yàgg say xeet ci téere bu mag suñu constitution ba ñu yore mu doon alquranul karim buur bi tabaraka wa mu di wax yenentu bi ne wa minan wa minan naasi am na ci nit ñi wa minan naasi am na ci nit ñi wa minan naasi bokk na ci nit ñi nga xamante ne jikko bi ma la bëgg a wax nii yow yonentu bi say xeet na nga bàyyi xel nit yi ni mel wa minan naasi am na ci nit ñi nga xamante ne man yu jaadilu ñey dagg sant di xuloo di weddi di sow rek fillaahi fayal sow boobu ñuy coow fa yàlla dàgg ñuy dàgg sante fa yàlla digir ak dangaam boobu ñuy jëmale fa yàlla defuñu ko ci lenn lu bi xayri ilmin ci ñàkk xam wala hudan teguñu ko ci orientation bu jub wala kitaabin munir teguñu ko ci téere bi nga xamante ne mënees na ci sukkas ñu am lay bu leer moo ne yàlla moo xam am na ci nit ñi ñu nga xamante ne dañ fiy nekk di weddi wanteeg nit ñi di xuloog nit ñi di weranteeg nit ñi di dàggisanteeg nit ñi ci li nga xamante ne fa yàlla lañ koy sukkas ndiku fa yàlla lañ koy wéeru ah waaw waaw waaye ñooñu nekk fii di weddi wanteeg nit ñi walla di xuloog nit ñi di weranteeg nit ñi di dàggisanteeg nit ñi loolu ñuy dàggisanteeg nit ñi loolu ñuy weranteeg nit ñi loolu ñuy dangaam ak nit ñi jëmale ko fa yàlla teguñu ko ci benn xam-xam lii moo ne dina am waaw waaw yàlla ñu gën a xam na jamono di doxee teguñu ko ci benn xam-xam fuñ ko teg seen bànneexu bàkken te moo ne am na am na ci jamono ji nit ñi di ko dund ñu di ko jëfee buur yàlla ne wala hudan teguñu ko ci benn orientation boo xamante ne dañ ne lañuy ñuy nit ñi wala la ñuy nit ñi walla lañuy sow ak nit ñi orientation bi fii lañ ko jële jëluñu ko ci benn orientation ba jóge koo fa yàlla buur yàlla ne wala kitaabin niir teguñu ko ci benn xam-xam woo xamante ne xam-xam bu leer la wala texte la ba nga xamante ne fondement bi mu ngi jóge ko ci alquran wala téere yu jógee ko fayal yàlla waaye ñooñu lu tax ñuy sow di ko jëmale ci nit ñi ñuy xuloog nit ñi di dàggisanteeg nit ñi di weddi wanteeg nit ñi ñu nekk fi rek di sow jëmale ko ci nit ñi ñu ne yee yaay loolu ñu nekkee ca yàlla lañ koy sukkandiku ci yàlla lañ koy sukkandiku te yàlla nee na loolu ñu nekkee bi xayri ilmin lañ ko teg teguñu ko ci benn xam-xam wala hudan teguñu ko ci benn orientation wala kitaabin niir teguñu ko ci benn téere bu jóge ko fa man yàlla mu doon lay bu leer ah bon waaw waaw nit ñooñu noonu nag lañu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam a baaxee ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu léegi mbuur yàlla dafa joxoñal yonentu bi ne am na ci nit ñi nga xamante ne dinañu fi nekk di sow ñoo ko di cow rekk waaw boroom xam-xam bu jóg wax ñu jóg contre carré ko ci beneen côté bi nga xamante ne amul dara dara dara lalal loolu ñuy weddi boroom xam-xam woowu ci xam-xam loolu ñuy weddi boroom xam-xam boobu yàlla ne teguñu ko ci benn xam-xam teguñu ko ci benn orientation ba jóge ko fayal waaye teguñu ko tamit ci benn téere bu leer ba yàlla wàcce nit ñooñu lañu ñu bi bëgg joxoñal ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu ñu nit ñu bëgg leen baaxee nit ñooñu ñuy dundal ndoor ak ñoom ci jamono ana ñoy ñan ci bëgg xam nit ñooñu ñooy ñan tey la ñu yonent bi joxoñal nang ñu may nopp ci réew mi fm ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu bi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi nga xamante ne mooy abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal baadiru bil acmaali saalihati fa satakunu fitna ka qitaci lleyl ka qitaa lleyli lmuslim yusbaxu rajul muminan wa yamshi kaafiran wa yamshi muminan wa yusbixu kaafiran yabiu diinahu bi ardin min addunya rawaahu muslim mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu baadiru bil aamaali saalihat na ngeen mooy na ngeen xër na ngeen babbeeku na ngeen daw na ngeen jikkalante ci jëf ju baax yi na ngeen fabbeeku na daw na ngeen samp seen xel jëmmale ci jëf yu baax ñi lépp luñ la naan jëf ju baax la ci diine bi nanga takk sa dàll xuus dem jëfe ko lépp lu ñu naan la lii jëf ju baax la na nga takk sa ndigg xuus ci moment boobu dem jëf-jëf ju baax jooju yow sama yaay ju baax ji yow sama jigéen ju baax ji toggal ñam ju neex toggal palaa bu neex nga joxe ko jëmmale ko ci ña ko yelloo ña ko yeyoo ña ko aajow da di jëf ju baax bi nga xamante ne keroog bu la ko yàlla fayee nga xam ne joxe ñam wóor waaye yow mi di sama frère ngal la waay lambal sa poos am na jëflante koo xamante ne wóor na la ne kii ku soxla lamu mu dafa xaw a gëlla góose waaye aajoona te mënut laaj bëgg na te mënut laaj lambal sa poos nga bett ko la nga xamante ne boo ko ko joxee dina bég lool xol bi dina fiix yonent bi ne baadiru na ngeen samp seeni xël baadiru na ngeen daw baadiru na babbeeku bil aamaali saalihaat ci jëf yu baax yi yonentu bi ne fa satakunu fitna dina leen dikkee ay fitna ay tolof-tolof ay benke-ñenke ay xat-xat yi nga xamante ne xaqita il leylil muslim fitna yi nañuy ñëwee seen kaw dañuy tegaloo mel ni na guddi di toftalante guddi dem am beneen guddi ñëw amul benn bés boo xamante ne jant bi dina ci fenk lu dul guddi ba koy remplacer dina ñëw yonent bi nee na nii la fitna yi di wuutu wante seen kaw fitna yay ñëw ba bi ñëwee ba dem am beneen ba ñëw day mel ni guddi nañuy remplaçante seen kaw na guddi yi di remplacer seeni kaw noonu la fitna yi di remplacer seen kaw yen jullit ñi yéen sama xeet kon balaa xat-xat yooyu di ñëw balaa tolof-tolof yooyu di ñëw yéen na ngeen gaawalantu ba waaxu sëmp seen xel jëm ci jëf yu baax ñi moo tax mu ne baadiru na ngeen babbeeku na ngeen gaawalantu na ngeen daw bil amali saalihaat ci jëf yu baax ñi yonentu bi ne sino ha ragal naa de fa satakunu fitna ah fa satakunu dina nekk ci yenn fitna yoo xamante ne dina leen dikkee dina leen ganise di ngeen dalal fitna yi xaqita leylil muslima comme guddi yu lëndëm yey wuutu wante ci seen kaw fitna ba ñëw dem am beneen bu gën a tar muy ñëw boobu bu jàllee ba dem am beneen bu gën a tar mooy ñëw su ko defee dootoo am jot di jëf-jëf ju baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw won melokaanu jëmm lenn ci nit ñi bu ñu ko sañee wax sax ñu ne ñu ngi koy dund suñu jamono ji ba tax na yonent bi nañu di ngeen gis yusbihu rajul mu'minan di ngeen gis ab waay ba xëy doon jullit aqan gëm yàlla lool waaye balaa ngoon yonent ne wayam si kaafiran balaa jant bi di soo mu murtat nekk yéefër yonent bi ne wa yum muminan di gis ab waay woo xamante ne ngoon ci yépp waaw à partir de midi balaa jant bi di sow dina doon ku gëm yàlla lool mu doon ku gëm yàlla lool mu doon koo xamante ne tarafatal ay ni weddi yàlla nekkul ci mbiram dafa gëm yàlla dina doon ko gëm yàlla ngoon si yëpp boo ko gisee nga ni kii ku gëm yàlla la ngoon si yëpp bu waxee nga ni kii ko gëm yàlla la waaye yenantu bi ne balaa bët di set wa yusbihu kaafiran balaa bët di set mu doon yéefar boo xamante ne kenn du xam la tax mu doon yéefar ci diggante bi moo ne yonent bi salaa moo ñenu moo ne ñu yabiu diinahu bi irdin min adduniya day toll foo xamante ne fitna bi da kay lëmbee fitna yi dañ koy mëdd fitna yi dañ koy wër nomb ba da koy jaral muy jaay diineem diine bu mu xëyee da koy jaay fekk ngoon mu doon yéefar boo xamante ne day doon ku murtat ndax diine bi mu nekkee am na lam ko ci xeetu privilège yu xaraam te fitna bi lëmbee na ko ba tax na jaay na diineem ngir gañe privilège yooyu corruption ci la nax nit ki ci la wor nit ki ci la tuur deretam ci la wax lu dul dëgg ci la nekk anam woo xamante ne tolof-tolof ak jafeñ-jafeñu àddina moo la ciy tax a dugg ci la ba tax na dangay nangoo jaay sa diine ngir am privilège bu noobul boobu nga xamante ne sa diine da koo rejeté da koo bañ gor warut mel ni jom daka rejeté etik ak moral dañ koo bañ dañ ko rejeté waaye fitna bala ganese wër la nomba xamoo nooy def ba tax na la fi nekk pour nga am privilège yu ñaaw yooyu mooy nga jay sa diine mooy nga wor walla nga wax lu du dëgg walla nga mel melokaan bala nit ñi xamutoon moo tax yonent bi ne di nga gis ab waay ba xëy doon jullit akkan waaye balaa ngoon nga gis mu doon yéefar mu murtat génn ci diine bi waaye nee na dinga gis waaye woo xamante ne toute la journée dina doon jullit xaqan waaye diggante guddi ak bër set waa ji murtat nekk yéefër moo ne yonent bi lu tax ñaari nit ñi ci diggante ñaari climat ñu am coppite ba leen dal yonent bi nee na yabi adiinahu day jaay diineem day jaay ngoram day jaay jomam day jaay fit ak jom ak ngor ba nekk ci da koy jaay te loolu bu ko jaayee diini bi day dem walla bu jaayee diini bi ngor jom gore diggu léppay topp diini bi mu daldi effacé wu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu yabi'a diinahu day jaay diineem bi ardin min ad-dunya ngir poñitum àddina ak privilège su àddina bañ ko dig ngir mu mel melokaan bu wuuteeg la ko diine bi sant hadis bi muslim moo ko moo ko solo mbokk yi bokk na ci lañu ñu war a mën a déggee maana hadis bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ne moo ne am na koo xamante ne amaana du ñàkk ñu am lañ ko jox ci xaalis walla amaana du ñàkk luñ ko jox ci privilège amaana du ñàkk lañ ko dig ci ay xeetu ndombo tànk boo sosalee diw boo ko waxalee lu mu deful boo ko tuumalee la mu nekkeewul ñu jox la nangam walla ñu jox la temps walla ñu mele la melokaan ba nga doon rêve waaw fii moy recours bu gaaw pour nga jot ci loole dinga nga am privilège yàllay mun a permettre nga war a mën a tukki fa nga mën a fa nga bëgg a dem ci àddina si dinga am dëkkuwaay bu bakkene di nga am waruwaay yu bakkene su ko defee boo nangoo melokaan yañ la wax ni ngir nga tuumal goru yàlla woowu walla jaamburu yàlla woowu saa yoo nangoo mel melokaan wi mel moom la leen yonentu bi ne yabiu diinuhu bi erdin min ad-dunya kii mooy ki jaay diineem ngir privilège bu ndaw bañ ko dig ci àddina su ko defee bu dee dañ la ko wax ci bëccëg balaa ngoon nga génn ci daairatul imaan nga daldi génn ci kuréelu way gom yàlla ñi tàbbi ci kuréelu ñu weddi yàlla ngir lañ la waxloo walla lañ la defloo walla lañ la melloo melokaan bañ la ne noonu lañu bëgg nga mel boo ko melee te mu lala la la diine jàngale xamal ne génn ngi sa diine ngir danga jaay sa diine ci privilège yu éphémère bañ la dig ci dundu àddina bi waaye yonentu bi nee na ba léegi di nga gis jëmm joo xamante ne wa yamshi mu'minan dina gontu mu nekk jullit aqan waaye balaa bër di set wa yusbihu kaafiran mu xëy ah démb gis nañ ne waa ji walla ndaw si da di ku jullite da ku déggu da ku nekk ku topp yàlla waaye yenent bi nee na bu bër setee di ngeen gis mu doon yéefar joo xamante ne da ngeen di jaaxle waaw kii diggante démb ci ngoon ak tey ci suba lu fi jaar la tax mu murtat ba mu doon yéefar moo ne yabiu diinahu dafa jaay diineem yabiu diinahu day jaay diineem mu nekk yéefar ne moo lu tax mu jaay diineem du lenn lu dut bi ardin min ad dunia lu dut privilège yu éphémère yi nga xamante ne moo ko ko jaral ba tax mu jaay diine su ko defee mu doon ku perte moo ne privilège yooyu yow mi jaay sa diine bi nga doon yéefar xamal ne privilège yooyu ñu lay naxee fii nga ko fekk bi nga doon ñëw andi woo ko kon yàlla mi la ko fi tegal na xaar yàlla jox la ko ci anam bu mu gën a jékkee waaye bu ko amee ci anam bu mu ñaawee buñ la ko dig tamit ci anam bu mu ñaawee bi nga di ko fàggu anam wi nga xamante ne ëllëg boo dajeg sa borom dinga riccu rëccu jaru ko su ko defee mu doon privilège yi nga xamante ne yàlla moo la ko fi tegal xaaral yàlla jox la ko ci anam bu mu gën a rafetee mu doon lala lew ndax privilège yooyu fii nga leen fekk fii nga koy jëfandikoo waaye aka neexoon nga faggoo ko fagguwin bu gën a rafet fagguwin bu gën a jekk bu dee demewut nii nag boo ko faggoo fagguwin bu ñaaw ah booy dem doo ko yóbbaale de ak liñ la munti dikk booy dem doo ko yóbbaale waaw dikk ba nga dëxalanteeg sa borom bu jotee la waa ji wax rekk loolu ngay wax rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min alsaalihin moo ne yàlla lu nga may ma dig bu ndaw nga yiixee ma tuuti ma saraxe ma bokk ci ñu baax ñi yàlla daal tontu jëmm jooju ne ko walan yu axira allahu nafsan iza jaa ajaluha deeti yàlla muy yiixee wala muy nëggandiku wala muy xaarandi waxtu ba mu dëxalanteeg bakkan ba war a génn ci jëmm jooju mu war ko a wuyu bu dele bi jotee yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo peeg ci lépp li ngeen nekkee di jëf kon ñun ak yéen ak képp kuy déglu waxtaanu fajar ci daara ji nañ leen jël aaya alquran ba yàlla wax ne nangeen jëfandikoo li ma bëgg ngeen mel melokaan ba ma sant ne bi na leen ko wax ne loolu mooy melokaan ba ma gërëm balaa dee di dikkal kenn ci yéen muy wax waxu rëccute ba aaya bi di wundu su ko defee mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñuy jox xibaar ci nasaraan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 baarakallahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu